kon lu jéggi dayu la. parce que moment moment bi muy am on était là et, et des nous informaient dama foogoon ni lu ndaw la mais li li Serigne Saliou wax. Mhm. moo yéeme. chef d'État qui tient un conseil des ministre mooy mooy daanaka li gën a important ci bis bi ci ci dëkk bi nga jiite que la mel ni xew nga am service de renseignement générau am police am ministre de l'intérieur bu toog ca conseil ba moment ba mu fay toog ca téléphone am mu ngay xam minute à la minute près lay xew foofu. on fait un communiqué. et personne n'en parle waxtaane nañ ko de foofu waxtaane nañ ko seen biir dañ koy waxante mais ci communiqué ba xam nga loolu mu tudd c'est un sens élevé de cynisme mooy xam nga est-ce que xam ngeen benn affaire est-ce que xam nga lu tax nguuru tubaab yi di fonctionner normal. sens élevé de cynisme wax ko ci. ak bon nga ëpp nga xam ni yow amuloo ci benn maanaam la bon nga kaa def ba pare amoo ci dara lu la cee metti mhm. moo la cynisme mhm. mooy ka nga xam ni feregewul loolu moom fi ngay toog naan ay waay ndeysaan mooy nit ka ñàkk ab ndeysaan ka xam ni soo naam dafa xaw a doy waar mhm. waxuma ne ñii loolu lañu ñu amee de mais jëfin bi daf kaa xaw nuru tubaab yi lan la def ci éducation Pécresse ba muy nekk ministre de l'éducation nationale bay ma ko waxee tey ci suba damaa damaa taf sama gémmiñ trois cent euros nga jox ko ab xale xam nga luñ ci jublu ñu ne passe culture parce que dañu bëgg seen doom yi comme léegi internet daf leen dominer ñu dellu ci lecture xale ba nangoo lii rek ñu jox la prime boobu à la fin de l'année sa ordinateur boo demee ba am bac yaaka moom gis ngeen sensu maanaam xalaat nit yi jàppale leen moo tax ma bëgg français yi je les adore les français ils aiment leur population ak seen dëkk lu ñu mën ci def ci biti ñun nag dañoo am nattu ba rëy ba nga xam ni saay ñun ñii jiite dafa mel ni ñoom dañoo amul tëb yëg-yëg la mel ni ba amee si ay xale ndaw kan moo war a woote ministre de l' éducation nationale dafa war a dem sax ne leen mas sax ñu daal di wan ñëpp ñu daal di ah, attention ministre de l' intérieur def na njom njombe mais mise l'éducation fay na ay ay bi ndax ca bis ba woote na xam xale bi fu mu dëkk ñan la mu ànd ak télévision maanaam ce sens d'empathie là loolu moo manqué nguur bi man nag dama xamul nag ndax ci président bi la wala ci ni mu àndal seen doxalin ñaaw na ba fu ñaaw em lii Serigne Saliou wax nag moo la dëgg ba que continuer nii nit ñi de mën nañ kaa lijjanti yàlla bu ñu egg foofu nag. yàlla bu ñu fa egg ñu wax uh, ci lu jëm rek uh, ci coowal uh, nag la xew ca Casamance ak MFDC mi nga xam ni jamono ji daal dina jàpp lu toll ci juróom-ñeenti militaire yu Sénégal waaye itam am ñu ca ñàkk seen bakkana mu nekk mbir moo xamante ne nag nañ ko traité ci rek presse bi daal diwul neex rek ministère des forces armées miy fàttali nag lu jëm ci wàllu secret wu défense ba tax na daal na rek xam le ni article soixante ak itam subséquent yi daal dinañu nag ñaawlu lépp loo xamante ni rek ne na laal lu jëm ci wàllu défense nationale dañ ci ànd ak Younousa Baldé dafa mel ni ministère bu yor lépp lu nekk forces armées kontaanuñu dara ci traitement bu ñu def ci otage soxol juróom-ñeenti soldaar yu ñu jàpp waral service yu ministère bu maître Sidiki Kaba di fàttali nit ñi lépp lu nekk disposition aajo ci protection secret maanaam aar secret mu di loo xam ne mboolem citoyen sénégalais la concerné moo xam nga nekk civil wala nga nekk militaire wala sax nga nekk ku jóge bitim réew te di dundee fii ci mim réew ministère des forces armées di xam ne nii rek code pénal bu Sénégal moo sanctionné bépp crime wala délit laale ci kaaraange réew mi rawatina ci article 64 bu addu ci wàllu woowee ministère ñeel forces armées di sàkku ci nit ñi di sàkku ci ñëpp rawatina ci ñuy yëngu ci tasuma xibaar ñu bàyyi ci xel bu baax a baax bañ a joxe xibaar yoo xam ne mën na remettre en cause kaaraange réew mii jërëjëf Younoussa Baldé journaliste bii di Bakary Domingo Mané moom daal dina rek euh, d'accord lu ni mel waaye nag jàpp na ni moom directeur publication bu Monde Afrique ne journaliste yi am nañu droit dal di traité xibaar yi ca na mu waree ndaxte askan wi dañu am droit ci information Bakary Domingo maane ñu teewlu ko. attitude bu mu war a am mooy nekk citoyen moom tamit na participer disons à la protection des populations maanaam bañ a diffuser information boo xam ne daal euh, très dangereuse nest pas pour la la nest pas des populations parce que su fekkee yow da nga joxe information boo xam le moral des troupes sur place loolu tamit baaxul ou bien joxe information boo xam ça peut mettre l'ennemi sur la bonne piste euh, combattre nest pas nos troupes boobu tamit journaliste intérêt général vraiment on à cela maintenant même dans si code de la presse bi article dix-huit ñëw mais su fekkee c'est pour ñu protéger ay individus ñoo xam ne ñu ngi ci hiérarchie xaw ma ban hiérarchie la nekk bu boobaa ñun euh, on met Alaaji mu mel ni kon euh, Bakary li mu wax nopp mën na ko dégg. nopp mën na ko dégg ci suba dama ne ministre bi li mu wax dëgg la. Mhm. kenn du tas xibaar amul benn taskatu xibaar wala benn organe. Mhm. boo xam ne da ngay liggéey ci luy des loo xam ni dafay dafay yàq sa réew. mu dee na saxal sa réew ci wàllu armée ci mhm. wàllu diplomatie ci wàllu politique ci wàllu koom-koom surtout bu fekkente ni bii dafa ànd ak ñoo xam ni euh, armée yi ñu yor du lu légal. Euh, dafa am itam nu ñuy jàllalee xibaar bi ndax. Euh, ñu ñi ne dañu dañ leen a enlever mhm. seeni ay mbokk ngi fi mhm. day jaadu sax journaliste bi am benn côté bu mu ci gàttañ lu mais tey ci bëccëg yëpp dama toppaat xibaar yi di xool di xool di xool mais ma ne ministre bi kan lay waxal kan moo tax mu génn communiqué bi yaaxat yi c'est-à-dire dañu on dañu am ay gouvernants yoo xam ne comme li kii wax euh, Bakary Domingo Mané dañuy jaawale information ak réseaux sociaux c'est vrai que information réseaux sociaux yoon la ci joxe xibaar mhm. mais organe bu crédible bu nekk presse en wala mu nekk benn télé web wala mu nekk benn chaîne de télé classique foofu la ñuy jotee information bu ñu traité ah euh, li ñuy wax te bayin nga nga nga settantal ko ba xam ne li xibaar bu leer la pour nga génne ko. Mhm. malheureusement ñoom souvent dañuy dem ak émotion. parce que depuis événement bi amee ba léegi toppaat naa man xool naa organité ci bëccëg xool xool gisuma kenn ko ko traité noo xam ne jar na yow ñu dànkaafu la ñëpp mébét nañ ci àndal euh, bu rafet. ak di ñaanal ñooñu ñu feeñ ak di wax ni ci kilifa yi war a taxawee ak Sénégal ak Gambie li ñu li ñu séq lépp ci wàllu jàmm ak ni ñu mën a sàmmee suñu àll bi nga xam moom la soldat yi doon sàmm ak ni ñuy sàkku ci rebelle ñu tenir langage de vérité amul kenn ku ci exagéré. Mhm. mais nag par contre ci réseaux sociaux yi. ci page yi nga xamante ni bii xëy na kenn moo koy administré koo xam ne xëy na sax du ci def turam bu baax ma nga fonge li mi ma nga sëggi bànnankoro man j'aurais aimé ñoom en tant que état ba ngay menace wala def lenn nga ni coppat kooka. ka joxe xibaar bu dëgguwul ba ci réseaux sociaux te mécc te tasum xibaar du métier nga dem ni ko cas ni waat pat ba ñu menacé ma Samba ba ñu menacé ma Demba. Bakary Domingo Man li wax dëgg la bu fekkee li actualité dañu ni bu leen tudd ma Samba bu leen tudd ma Demba ma Demba bu ko kañ a bu ko tudd kii bu ko jaan màttee bu ko wax. loolu amul ci méccam tasum xibaar ku ko wax taskatu xibaar dafaa lànk. Mhm. waaye nag bu dee réew mii comme ni ñu ko waxee kenn gënuñu koo bëgg. te ba ñu commencé xibaar yi ba léegi yaa di amagul benn organe de presse Sénégal bu jalgati ci anam gi mu war a traité dossier man xaw ma ban muusa leen piqué c'est-à-dire ñun dañu am ay gouvernants yoo xam ne même bu ñu nekkee ci lu sérieux ñu wax ko waxtaane waxtaanu biir dañuy menacé. c'est-à-dire loolu moom moo moo jaaxal. Uh-huh. mais Serigne Saliou est-ce que nekkul le fait que ñuy wax boobu ba léegi di baamu di baamuwaat di wane ne uh, larme bi am na ñun ci jot a teg loxo ndax nekkul boobu xibaar la ñuy bañ mu mu mu fës ba nit ñi jàpp ne ñun oyofee nañ oyof guñ ñu mën a buñ ñu mën a jàppee juróom-ñeent ci ñun. faat ci ñaar même xarit loolu dara newu ci saa c'est mm-hmm. information. Mm-hmm. il y a neuf soldats yoo xam ne jàpp nañ leen. Mm-hmm. mais ñooñu dara c'est-à-dire loolu une information mm-hmm. et ça ne compromet pas encore vraiment euh, les positions de l'armée mm-hmm. diw ak diw ak diw ak diw la parce que chaque jour da toog fii nga dégg par exemple ñu naan la ay càdd wala nga dégg yenn kii ñu naan la jàpp nañ temps tant tant mm-hmm. français yi seen otage ñu daan jàpp da nga da nga daan dégg da ngay xam ñan lañ mhm. loolu je crois que joxe ko sax c'est participer vraiment à l'info à l'éducation même du citoyen mhm. donc pour man loolu dara newu ci et vouloir empêcher aux médias aussi de donner de pareilles informations loolu pour man censure la te censure baaxul ci démocratie mhm. li ñu a tere kay mooy wax loo xamante ne ni des positions de l'armée boo xam ne ni mën na leen indil insécurité par rapport ak rebelles yi loolu su boobaa mën nañu wax ne il n'est pas du devoir des journalistes de révéler les positions de l'armée en disant que armée bi ñi ngi fii ñi ngi fii et cetera mhm. loolu ñun du suñu cër mhm. mais bu fekkee na nga am sa éthique ak sa déontologie je crois que am na noo xam ne moom ngay tasee xibaar mhm. te man nag problème l'instant gisuma fi loo xam ni mi ngi dafay compromettre les positions de l'armée bien sûr par rapport à cette histoire-là mais dire que ne jàpp nañ tant de militaires militaire sàngam la sangam sangam pour man gisuma loolu lan moo ci nekk lu dul vraiment donner la bon information. Paa ñu gis kon ci réseaux sociaux yi boobu ba léegi am na ay information yoo xamante ne dëgguwul am tamit ay vidéo yoo xamante ne yu yàgg la sax ñu beesalaat ko di ko teg ak yooyu yëpp loolee tam mën na bokk ci li waral ñuy artu. waaw possible waaw si peut-être mën na mën na ko waral. mais dafa am fenn fu ma bëgg a dem. Mhm. Euh, en 2000 Baye Sall bu dee engrais fàttaliku euh, Abdoulaye bi muy door a ñëw waxoon na mbiru Casamance bu ci kenn waxati. Mhm. et je me rappelle euh, le soir où Thierno Talla di boucler au populaire di traiter information bi ba info ba génnee ñu jàpp ko dal na fi waa Sud FM defe naa mu jumul ba muy dal waa Sud FM lan moo xewoon te pourtant France 24 jël na Salif Sadio. ñu man nag ma question mooy bu dee suñu nguur ñun dafay wax ci sécurité. Mhm. nan la France 24 mën a jógee France ñëw dugg fii dem ba Casamance toog ak kilifa ba baax ba màgg boobu ñuy wax Salif waxtaan ak moom dem jàllal ci seen télé tranquillement sans que personne bronche suñu nguur waxul dara ci ñooñu mais fii Sénégal journaliste sénégalais amul possibilité boobu parce que dañ koy jàppee peut-être kuy jaxase carte gi. may wax ne mbiru Casamance dafa am la si nekk. loo xam ni lu simple la dafa bëri ñi nga xam ni ñoom Casamance calme arrangé wu leen dañ see business dañ see dox le bois bii ñoo wax dafa nekk ab richesse ba toll ni àdduna nekk la nga xam ni dafay compter waral coow li xaali kalaj gi léegi nag am na ñoo xam ne dañoo sol costume sol jàlla bi ya rafet dañoo yor sax per la circuit la dugg la génn la toog la dem ngénte ki dëj la ñaan